sëriñ bi xaadalahoo laaw maxtaaloo bi mu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi wa sallama mi nga xamal sëriñ ahmadu mi doomi sëriñ muusa am nu yoom ak di ko ñaanal di ko xamal ni gis na bataaxal bi mu ko bind mu bari ay laaj lool mu tontu yenn la mu tontu yenn laaj yi bàyyi yenn yi ndax sunu borom subhanahu wa taala mën a jariñ ñëpp ci li muy tontu faawu ginnaaw loolu la wax lii li ngay laaj ci melaw xaras ak kursiyu naan xoolal te wax ma nu mu mel li ma lay tontu moo de xaras mënuma koo dogu ci wax la dëgg dëggam li ma lay tontu moo de xaras mënuma dogu ci wax la dëgg dëggam waaye boroom xam-xam yi nee nañu lu rëy la loo xam ni ci wurus la ko sunu borom binde mu nekk ca kaw juróom ñaari asamaan ak kaw kursi am na junni junni bopp bopp bu nekk am na junni junni kanam ak juróom benn téeméeri junni kanam kanam gu nekk am na junni junni làmmiñ ak juróom ak ak juróom benn téeméeri junni làmmiñ làmmiñ wu ci nekk day sabbaal sunu borom subhanahu wa taala ci junni junni làng lang wu ci nekk sunu borom subhanahu wa taala da ciy bind mbindeef mu koy sàbbaal ca yooyee làkk ba tey kursi yu mënuma dogu ci wax la dëgg-dëggam waaye boroom xam-xam yi nee nañu jëmmi leer la taq ca xaras am nañu wax ni jëmmu la ju rëy nekk ci kaw juróom ñaari asamaan yi ca ron xaras am nañu wax ni ci wurus lañu ko binde am nañu wax ni xaras tànkam bu ci nekk guddi na ni juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf yi allahul mahfuus nag yal na nu yàlla xamal ci moom ay xam-xam maag yow moom mi ngi ci kaw juróom-ñaari asamaan yi lañu lañu njëkk a bind ci moom moo di man maa yàlla amul benn buur budul man muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam samab jaam la samab yonente la maa ko tànn képp ku nangu samab dagol di mucc képp ku nangu sama dogal di muñ samay nattu di sant samay xéewal danaa ko bind muy siddiq dekkal ko mu ànd ak siddiq yi yowmal xiyaam tabbal ko ajjana ku nanguwul sama dogal muñul sama nattu santul samay xéewal na génn ci ron sama asamaan te wut beneen bu wóor bu dul man koddaayu lawul mahfuus tol nañu diggante asamaan ak suuf juróom-ñaari yoon saa taq ca xaras wala daa taq ca xaras lépp lu war a am ma nga ma nga ca ba bis penc maanaam guddaayu lawhul mahfuus tol na ni diggante asamaan ak suuf juróom-ñaari yoon daa taq ca xaras lépp lu war a am ma nga ca ba bis penc ba tey lii nga laaj bokk na ci li ma gën a bëgg ndax maa ngi ci yaakaar tuyaaba ci sama bopp ak ci yow ak ci képp ku ko gis nan sant yàlla subhanahu wa taala ci soppante ginu soppante ngir yàlla subhanahu wa taala bay sàkku ay dénkaane ak waare yooyu bokk na ci ci yi ma yàlla subhanahu wa taala may danaa la ci tuddal dara insha allahu taala li ngay laaj lan la sunu boroom njëkk a bind am na hadis bu wér bu wax ni sunu boroom subhanahu wa taala daa bind ak garab gu am ñeenti car tudde ko sajaratul yaqin bind leeru yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama mu mel ni lu nekk ci wurus yor jëm mi picc mi ñuy wax jëmmu teg ko ca kaw garab googu muy sabbaal lu mat juróom ñaar fukki junni at sunu borom subhanahu wa taala bind seetub kersa teg ko ca kanamu picc moomu bu mu xoolee boppam ak ni mu taaroo daa rus daa rus yàlla subhanahu wa taala ba sujjoot lu mat juróomi sujjoot sunu borom subhanahu wa taala bind ci juróomi sujjóor yooyu juróomi julli juróomi julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama ako xeetam maam da cee daa bind juróomi julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama ako xeetam sunu borom subhanahu wa taala xool ko mu ñaq ngir kersa sunu borom subhanahu wa taala bind ci ñaq wi jóge ci boppam malaaka yi alayhimu salaam bind xaras ak kursiyu ci ñaq wi jóge ci kanam gi naka noonu lawhul mahfuus ak xalima ga ak jant bi ak weer wi ak biddi wi ak mbooleem li nekk ci kaw asamaan bindi yonante yi alayhimu salaatu wasalaam ak boroom xam-xam yi ak ñu baax ñi ak ñi faatu ci xare yi ci ñàkk wi jóge ci dënn bi bind baytul baytul maamuur ak kaaba gi ak baytul muqaddas ak jàkkay yonante yi alayhimu salaatu wasalaam ci ñàkk wi jóge ci ndigg li wala digg bi bind jullit jullit yu jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ci ñàkk wi jóge ci ci yéen yi bind yahood yi ak nasaraan yi ak yéefar yi amul téere ci ñàkk wi jóge ci ñaari nopp yi bind suuf si ak li ci nekk lépp ci ñàkk wi jóge ci ñaari tànk yi daa di wax xoolal yow leerug Muhammad alayhi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama ci sa kanam mu xool gis leerug Abu Bakrin Omar Usmaan Aliyu radiallahu taala anhum mu sabbal lu mat juróom ñaar fukki junni at sunu borom subhanahu wa taala door a bind ruux yi ruux yëpp wax laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sunu borom defar lu mel ni ab làmp bu rafet def ci picc moomu yor melaw yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mu nekk ci adduna ruux yëpp war ko sabbal lu mat téeméeri junni at sunu borom subhanahu wa taala wax ruux yi ñu xool melaw picc moomu ñoom ñëpp xool ko am na ñu gis bopp ba nekk ay xalifa am na ñu gis jëba nekk buur yu maanu am na ñu gis ñaari bët ya nekk ñuy mokkal waxi yàlla subhanahu wa taala am na ñu gis ñaari nopp ya nekk ñuy dégg am na ñu gis ñaari lex ya nekk ñu am xel tey rafetal am na ñu gis bakkan ba nekk ñu bari ay xekkam te maandu di ay fajkat am na ñu gis ñaari tuñ ya nekk ay jaraaf am na ñu gis gimiñ ga nekk ay woor woorkat am na ñu gis bëñ ya nekk ñu rafet kanam am na ñu gis bulli ga nekk ay waarekat yu laabiir ak i noddukat am na ñu gis ñaari yaxi sikkim ya nekk ñuy jihaad ci yoonu yàlla subhanahu wa taala am na ñu gis làmmiñ wa nekk ay yonante am na ñu gis mbaggum nday jooram nekk ay mooy ba tey lim ci teg daa ñëwut am na ñu gis ñaari përëg ya nekk ay warkati fas am na ñu gis përëgub nday joor ba nekk ay namputalkat am na ñu gis përëgub càmmooñ ba nekk ñu réer am na ñu gis biir tenxul nday joor ba nekk ay mooy ba tey lim ci lii dafa dafa leerut moo tax yooyu sax def na ko màndarga kon am na ñetti bërëb yoo xam foofu ña gis ñaari yéen ya lañ nekk foofu waxu ko ña gis mbaggum ndey jooram ñam nekk woon ko ña gis ténkul ndey joor ba mooy ba tey leen nekk daa mel leeru ci mool bi am na ñu gis ténkul càmmooñ la nekk ay nattkat am na ñu gis ñaari loxo yépp nekk ñu tabe te yeewu am na ñu gis ginnaaw ténkul càmmooñ ba nekk ñu nay am na ñu gis baaraamu loxob càmmoñ ba nekk ay tëggkat am na ñu gis ginnaaw ga nekk ñuy toroxlu am na ñu gis ñaari wer ya nekk ñuy xare am na ñu gis biir ba nekk ñu doylu te dëddu am na ñu gis ñaari bëti wóom ya nekk ñuy rukkoox di sujjóot am na ñu gis ñaari tànk ya nekk ab rëbbukat am na ñu gis ay keram te mooy takk ndeer ba nekk ay waykat am na ñu gisul ci moom dara nekk ay yahood ak i nasaraan ak i majjoos ak ñu gëmul dara am na ñu nangu wuta xool nekk ñuy woote ak yàlla ñuy woote ak yàlla yal na nu yàlla subhanahu wa taala def maag yow nu bokk ci ñi gëm yàlla subhanahu wa taala te jub ba tey loolu nga doon sàkku ci ay waare te ma waxoon la léegi danaa la ko andil moo nekk nii yal na nu yàlla jàppale defal nu tawféex jubal nu yow sama mbokk muñ bokk na ci li gën ci mbooleem ngëneel yi ginnaaw ba musiba dikkee ginnaaw bu musiba dikkee daal nga muñ bokk na ci gën sunu borom subhanahu wa taala nee na danaa leen nattu ci am tiit ak xiif ak ñàkk ak tawat ak bekkoor waaye ñi muñ nañu bég ba tey yonente bi ba tey subhanahu wa taala nee na maa ngi ànd ak ñi muñ yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na muñ dëgg-dëgg ma nga ca fa mu lay door a dale am na ca mag ña ko wax ni bi ñuy wax ab muñkat mooy koo xam ni lu ko nit ñi def mu muñ ko du fayu ci saahir du fayu ci baatin du leen ñaanal itam aw ay ci yàlla subhanahu wa taala muñ gi nga gi gën a màgg nag moo di muñ li la sunu boroom di tere ba doo ko def tey takkoo la mu lay digal am na ci nit yàlla yi ko wax ni musiba dana topp ab jaam di ko raxas ba dootu dese benn bàkkaar sayyiduna Musa alayhi salaam mas naa romb koo xam ni rab yi dañu ko lekk bënn biiram te fekk xamoon na ko mu laaj boroomam ni ko kii daana topp yàlla subhanahu wa taala lu waral li sunu boroom ni ko dama ñaan daraja ju mu mënta jëf ma natt ko ci lii ngir jox ko ko nit yàlla yi daje nañu nangu ni kuy jàmbat musiba ci kudul sunu boroom dootu amati neexitu jaamu yàlla li feeg sunu boroom jéggalu ko sunu boroom subhanahu wa taala mas naa wax ab yonente bu ñuy wax xasiis moytul bu ma la tegee musiba nga may jàmbat ci sama mbindeef yi deel jëflanteeg man ni may jëflanteeg yow saa boo jëfee jëf ju melul noona du ma la jàmbat ci samay malaaka naka noonu bu ma la tegee am nattu bu ma jàmbat ci sa min ci sama mbindeef yi am na ci nit yàlla yi ko wax ni ayooba alayhi salaam ba alalam jaxal ko lépp daa dugg ci am néegam summi ay yéreem ni nii laa ñëwe woon adduna nii laay génne adduna sunu boroom subhanahu wa taala mas naa wax daawud alayhi salaam coono boo am deel muñ kon da nga am ndimbal ba tey mas na ko wax boo dee wommatu ci li ma bëgg danaa la doy ci li nga bëgg boo dul wommatu ci li ma bëgg danaa la sonal ci li nga bëgg te li ma bëgg rek mooy am bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci garabu tuuba ba tey xaaju juróom benneel bi am na yonante bu doon jàmbat boroomam ay coono yu ko dal sunu boroom ni ko du ma ko yelloo genn gàcce wala xayib maa la bind andi la adduna gërëmoo sama dogal bu rafet boobu ci yow dangaa bëgg ma soppi adduna ngir yow dangaa bëgg ma soppi la ca lahul mahfuus ngir yow dangaa bëgg ma àtte li nga bëgg bàyyi li ma bëgg ma am nga am li nga bëgg ma ñàkk li ma bëgg maa ngi lay waatal ci sama tedd lu mel nii bu bàyyi kootee ci sab xol weneen yoon doo bokkati ci yonante yi alayhimu salaam te danaa la tàbbal sama sawara te duma ci faale dara lii mooy yarug sunu borom subhanahu wa taala su ko defee lii mooy li jàpp ni ci man ma bind ko ma bind ko léegi ndax soxla yi bari na lool waaye maa ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ko jëf ju yiw ju nangu jariñ ma maag yow ak ñëpp ñi koy hittewoo ci mbokk yi ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama yow sama mbokk mi xamal ni soxla yu bari rek moo ma teree guddal tontu li yal na yàlla sunu borom seral sunuy xol teeyal sunuy bakkan ak xol yi ñëpp ci julli ñi ci adduna ak alaxira man na ko moom yàlla subhanahu wa taala te dana wuyu ñaan dana dimbulee amul moroom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu loolu ba tey mi ngi ci diwaanu jaza u shakur xatu téeméer ak fanweer ak benn muy cent trente et un